kon mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey sunu aaya bu jëkk ci suratul anbiya alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk jullit yi ñu ngi yee salaat sant suñu boroom subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu xéewalaat ñu daje ci ab néegam ci daje boobu nga xam ne rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da daan wax ni majtama'a qawmun fi baytin min buyuti llah yatluuna kitaab allah wa yetadaarasuunahu baynahum illa nazalat alayhim sakina wa gashiyatuhum arrahma wa xaffathum almalaika wa zakarahum allahu fi man inda ay julit day duñu daje mukk ci benn néeg ci néegi borom bi ñu jël téere bi yàlla bi di ko jàng lu dul yàlla wàcce ci ñoom ak dal yiir leen ak yërmandeem sant ay malaakaam ñu ñëw wër leen mu leen di tudd ca malaaka yu kawe ya ne fa moom yal na yàlla subhanahu wa taala boole ci sun jataay bi mboole mit fa wax ji nar a yegg jullit ña nga xam ni tamit ñoo bàyyi lenn ci seen waxtu di déglu kàddug borom boobu yal na yàlla jagleel leen yool boobu ñi nga xam ne it ñoo dox suñu diggante ak ñoom di ko toxal na doon site ya nekk ca xam sa diine xam islam point com wala islam tv bi nga xam ni ñi ngi may wax ni dogal nañ ko ci kaabalu parcelles yi léegi nit ñi mën nañ koy seetaan à découvert ci seeni télévision bu dee kaabal yooyu am nga ko ala kulli xaal loolu it bokk na ci jottali kaddu borom bi jalla wa ala yal na yàlla subhanahu wa taala boo la ñu ko nangul kon incha allah ñu bàyyi Cheikh Ousmane mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk. barakallahu fikum auzu billahi min alsheytani irrajim bismillahi irrahmani irrahim iqtaraba linnaasi xisaabuhum jege si na ñeel nit ñi régler biñ leen nar a régler seeni jëf wa hum fi ghaflatin mu'ridun doonte ne ñoom day ñi ngi ci ak càggante doon ko dummooyu la nga xam ne mooy seen mbiri boroom maa ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdasin du leen dikkal mukk ak fàttali gu bawoo ci seen boroom doon fàttali goo xam ne gu yees la illa stama'uhu wa hum yal'abun loodul ñoo ngi toog di ko déglu fekk ñoom ña ngay nekk di aji fo nekk di fo laahiyatan qulubuhum mu nekk aji saggan seen xol ya wa asaru najwa allazina zalamu ma ngay nëbbu ak déeyoo ña nga xam ne dañoo tooñ hal haza illa basharun mislukum ma ndax kii ca mooy yonent bi ndax nekkul lu dul nit bu mel ne yéen kese afa ta'tuuna sixra wa antum tubsiruun ndax da ngeen dem di dikkal ak njabar ca fekk yéen a ngi ànd ak seen gis-gis yéen a ngi gis qaala rabbi ya'lamu alqawla fi samaa'i wal ard yonent ba ne ah yàlla day xam ne kaddu ci asamaan yi ak suuf ci asamaan ak suuf wa huwa samii'ul aliim ca mooy aji ki dégg lépp aji ki xam lépp bal qaalu adgaasu axlaam doonte ni ña nga naan lii day nekkul lu dul lu dajaloo ci ay gént rek bal iftaraahu am ñeneen ñu ne ah déedéet moom kay moo ko dóoral rek bal huwa shaair am ñeneen ñu ne déedéet moom day ab woykat buy woy la rek fal yaatina bi aaya nañu indil kawtiif kama ursila al awwaluun comme nañ ko yónnee woon ña nga xam ne ñooy ne jiitu woon mbokk jullit lii mooy suuratul anbiya saar boo xam ne suñu boroom mi ngi ñu ciy nettali fim jaar ak yonentam mbokk àdduna kërug nattu la loolu moo tax ba yow jullit mënoo ñàkk léeg-léeg nga jaar ci ay jafe-jafe loole ma nga juddoo directement ci sa diine wala mu juddoo ci dogal yi yàlla di dogal ci yow ci mbiru àdduna waaye amul lenn lu lay dal nga jàng jaar-jaaru yonent yi lu dul nga gis ca loo xam ni dana dalal sa xol ndax ñooñu nga xam ne ñooy tànneefu yàlla ñooñu nga xam ne ñooy ñi gën ci mbindaafanu yàlla yi gën caa mat nattu yeneen yàlla teg looli tegulu ko yow te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ashaddu nnaasi balaan al anbiya ñi gën a tar ay nattu ci kaw suuf mooy yonent yàlla yi looloo tax xatta yonent boobu suñu borom mi ngi koy wax wa kazalika naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'aadak daañ la nettali ci jaar-jaari yonent yi loo xam ne dana dalal sa xol ba nga xam ne loo gis rek xam ni am na yonent bu jaaroon ci lu gën a mag loolu moo tax yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam façon lor bu ne lor nañ ko ko ca bokk na ci lii ñu nar a jàng loolu waaye lu mu masan wax heure bu ko lor dale waqad uuziya muusa aksara min zalika fa sabar lii ñu may teg ci lor day lan tegoon muusa ko ëpp gën koo màgg ci da koo muñoon kon danaa muñ muñ gu rafet sunu borom ubbee ko ci ne jege si ne nit ñi seen xisaab xisaab boobu ñaari xisaab la mooy xisaab bi ñépp bokk te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni yàlla de bi may yónni maag bisu penc li ñu rawante dafa mel ni ñaari baaraam yi tegaloo ni ñu rawante kon mujjeelu yonent bi yàlla yónni day wañu na àdduna lee mu jeex loolu ba ko yonent bi waxee léegi ñaata at la junni at ak ñeenti téeméer wàññeeku na ci kon boo ko àllaaxira gën naa jege waaye nag yow julit xamal ne ñaari àllaaxira am àllaaxira bi ñépp bokk ak sa àllaaxira yow yow sa àllaaxira xamal ne bis boo xëyee rek àllaaxira gën na laa jege benn bis semaine bu jàll gën na laa jege semaine ila axiri loolu nag mbokk julit da nga cee war a bàyyi xel mbokk sa dee ak sa bàmmeel mi ngi lay jege di la jege te bis bu ñëwee keroog la sa xisaab di commencé ndax mooy conséquence la nga jëf ci kaw suuf doomu aadama yi fa ñuy faatoo faatu ga ñuy faatu dana ca feeñ nañ doon liggéey ci kaw suuf su doon ñi ngi nekkoon ci ngërëmal yàlla malaaka yu tedd ñooy ñëw fekk si leen di leen dalal di leen wax wax ju sedd xol ba baa ñu jël seen ruux bala cay tege tege ca boo jaarul woon fi neex yàlla ay malaaka yu mbugal yu ñàng ñooy ñëw ak seeni bolde di la dóor di la xas di la yëjji ba baa ñu jël sa ruux la cay tege doog caa tege loolu nag mën na nekk tey ci guddi loolu mën na nekk suba bés bu nekk bu ngeen xëyee digg dee yoo xam ne nii da leen di jaaxal dee mbetteel suñu borom nag nee ne li ëpp ci nit ñi ñu ngi ci rëf la rëf la mooy la leen yàlla binde woon sàggane nañ ko mbokk yàlla indi wuñu ci kaw suuf ngir ñu dajale alal yàlla indi wuñu ci kaw suuf ngir ñu nekk des politiciens yàlla indi wuñu ci kaw suuf ngir ñun jigéen ñu xool kan moo gën a taaru ila axiri suñu boroom dala bind ngir nga jaamu ko mboolem sa dund googee da nga koo war a jagleel jaamu borom bi li ëpp ci nit ñi nag ñi ngi ci xëf la ñi ngi ci leneen lu leen itteel jaamu yàlla ba pare muridun la yàlla wàcce woon ci ay aaya ngir jàjji leen ñu dellu wàcce yoon ba la ëpp ci nit ñi dañ koo dummooyu borom bi subhanahu wa taala jamono bi muy wàcce alquran nee na yéeféer yi amul yenn aaya yu bees yu ñëw lu dul dañ koy déglu boole koog seenam fo seen xol ya doon xol yoo xam ne nii xol yu saggan la ay laahiya moog rëf la benn rek la mooy seen xol ya leneen itteel leen ca lu dul xalaat aayay borom bi ngir jëfe ko ca loolu mbokk mi ngi wàccoon ci yéeféer yi waaye malheureusement tey jii lan lañ gis jullit tey da ngay gis ñoo xam ne aayay borom bi la ñuy jël di ka dajee di ka foye dama jëlale ñu nekk ci orchestre yi nga xam ne dañuy nekk di tare alquran di wax laa ilaha illallah waaye da ngay gis xatta aayay borom boobu da ngay gis gaa yoo xam ne seeni ndënd la ñuy yor di tëb di tëgg di fecc wallahi am nañu ma ci dégg lu ñuy wax wa jaa rabbuka wal malaku safan safan safan wa jaa rabbuka wal malaku safan sa boole ko pecc moo xam ne góor ak jigéen moo gaa yi ndax aaya boobu xam ngeen li muy wax bis boo xam ne yàlla dajale na nit ak jinne ak malaaka ñépp ñëw suñu borom mu ne mu ñëw malaaka yi ñëw ceinture doomu aadama yi mbir mu ñàng ba mu ñëw boole ko ak pecc loolee benn rek ci misaal yi nga xam ne yàgg ngeen ko dégg ca mooy fettaxu jaayu ci turu yàlla ak ci ay alquran loolee mbokk ci yiifir yi la wàccoon malheureusement lu bari jullit yi tey dañ koy jëfe borom boobu subhanahu wa taala nag nee na suñ dajee seen grand place ya di déeyoo ñii dañuy taxaw ne hey xam ngeen kii nit la rek comme yéen li muy wax ak njabar kese la naka ngeen di dem di toppe ak njabar fekk yéen a ngi gis ca njabar googu mooy lañ gënoon a dëppoo ndax dañ ni muhammad képp ku ko dégg mu njabar la nga bàyyi sa diiney bàyyi day njabar di teqale famille yi dañuy famille yu nekkoon jàmm muhammad ñëw teqale na leen ndax am na bàyyi bu dugg ci diine ji ay doomam bëggatuñ koo gis wala doom ju dugg ci diine ji bàyyam bëggatu koo gis kon njabar la mi ngi noonu ndax di nga ngi dikkal njabar fekk yéen ngi gis borom boobu subhanahu wa taala nag ne yonenti yàlla ba de moom tontu ne ne yàlla gën a xam wax day jóge ca asamaan yàlla gën a xam wax day jóge ca suuf ca muy ki peeg lépp ca déggam ga ki xam lépp ca xam-xamam ba sànq bi ñuy julli ñun ñépp ñi ngi këpp suñuy jéeg ci suuf di sabbal yàlla sabbal goo xam ne ki suuf si yow déggu la waaye yaa ngi am yaqin ne yàlla subhanahu wa taala dégg ne li may wax ci xam na ko noonee la ko jën yi sabbaale biir géej noonee la ko njaa àll yi di sabbaale ci biir forêt ya noonu lañ koy sabbaale ci biir montagne ya waaye suñu boroom laa yaxfa alayhi shay'un fi l ardi wala fi sama dara du ko réer jalla wa ala huwa samiul alim am ñoo xam ne dañ ne déedéet muhammad mii ay gént la rek lii xam naa ne ay gént yu koy dikkal la mu jàpp ne réalité la mu jóg di ko wax adxaasu ahlam am ñu ne déedéet géntul dara moo ko sos rek dafay réy réylu am ñu ne waaye ah am na njabar yu ko fi jiitu woon daan wax wax yu mel nii muñal leen ko rek léegi mu dem comme na njabar yooyu doon demi ñoom ñépp nag ñu bokk dëppoo ci ne su dee ne nee nga yàlla la yónni indi kawtéef comme na nga xamee ni nii noonu la yonent yi jëkkee doon indi ay kawtéef loolu mooy la nga xam ne laaj bañ ko laaj mi nga noonu Cheikh Ousmane barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ne ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha musul nekk mukk di gëm jiitu leen ci la nga xam ne mooy dëkk ya ñu alagoon afahum yuminuun ama ndax ñoom ñooy gëm bu aaya ñëwee wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuuhi ilayhim ñun de yónni wu ñu jiitu la lu dul ay góor yoo xam ne dañoo wax yu jëme ca ñoom mi ngi noonu fasalu ahla zikri in kuntum la taalamuun laaj leen ña nga xam ne ñoo yoroon fàttali ga te muy tawraat ak injil su dee ne nekk ngeen di ñàkk xam wa ma jaalnaahum jasadan la yaakuluuna taam ñoom day defuñu leen woon ay jëmm yoo xam ne duñu lekk ñam wa ma kaanu xaalidin te it nekkuñu woon di sax fii ba faw summa sadaqnaahum alwaad waaye gannaaw ba ñu dëggal leen la nga xam ne mooy dig ba fa anjaynaahum wa man nashaa ñu musal leen ak ña nga xam ne ñoo ñu soob wa ahlakna almusrifin ñu daal di alak ña nga xam ne mooy yàqkat ya laqad ars laqad anzalna ilaykum kitaaban fiihi zikrukum wàcce nañ jëm ci yéen téere boo xam ne seen ak aw tur seenug fàttali ma nga ca doonte ne ma nga ca nekk seenug teddaange afala taaqiluun xanaa du ngeen doon ñoo xam ne ñu xellu ngeen mbokk bind biñ jëkk a jël yéeféer yi ñu ne yow muhammad soo bëggee ñu gëm la indil kawtif buy wone ne yow yàlla la yónni kawtif ba nag mooy lan mooy loo xam ne ñoo ko tànn boo demee ci suratul isra nee nañ ko soo bëggee ñu gëm la xaral ñu màkk gii mu génn fi ay dex wala yow nga daal di créer ay jardin yoo xam ne nii fruit yaag dex ya dara du ci manqué wala boog nga naaw dem kaw asamaan indi téere boo xam ne dañuy xam ne ci yàlla loo jóge ila axiri suñu borom nag yàlla ne moo xanaa fàttaliku wuñu mboolem dëkk yi ñu alagoon bañ laajee kawtiif yàlla indi kawtiif gëmuñu ko bokk na ci li ñuy jàng bu yàggul dara ci suratu taaha suñu yonent yàlla muusa yàlla jox na ko juróom ñeenti kawtiif tis i aaya juróom ñeenti kawtiif taxul waaxitam gëm suñu borom mi ngi wax feneen ne wa aatayna samuuda naaqata mubsiratan fa zalamu biha ñii di waa samuud te ñi ngi nekkoon ci biir arabie saoudite yàlla subhanahu wa taala yónni ne leen gëléem gu génne ci montagne ci taxul ñu gëm ko ndax kon yéen waa Makka jàpp ngeen ne suñu indee kawteef da ngeen gëm déedéet mbokk loolu musul am te bu kawteef ñëwee nit duñ ko gëm doonte ne ne suñu borom yàlla jalla wa ala mboole mi kawteef yam ma sa jox ay yonent suñ leen dajale woon kawteef bi mu jox yonent yàlla muhammad moo ko gën a mat ah gën koo matale te mooy téere bu mag bi ñu tim nga xam ne nee na nit ak jinne bu ñu dajoo woon mënuñoo fexe ba indi lu mel na alquran loolee sun maam yi gëmoon ko tey biñ demee ba science développé mu am ay preuve scientifique yuy wone ne alquran ji mënul woon a jóge lu dul ci yàlla jalla wa ala te kawtiif yi yàlla doon jox ay yonentikat du woon dara lu dul mu nekk mu'jiza aw preuve buy wone ne kii yàlla ko yónni kese suñu borom yàlla subhanahu wa taala nag mu ne musuma yónni jiitu la lu dul ay góor te loolu ñoom luñ doon wax walaw shaa allahu la anzala malaika yàlla su bëggoon a indi ay ndigal yu ñuy jox malaaka lay wàcce suñu borom mu ne déedéet musuma yónni ba ma dalee yónni ba tey lu dul ay nit ay góor dem leen laaj ahlu zikr te mooy laaj leen ñu jàng tawraat ñu jàng injil ñu jàng téere yu jóge ci yàlla ndax yàlla mas na yónni yonent lu dul góor looloo tax mbokk yonent bu jigéen yàlla mosu ko yónni yàlla du yónni malaaka yàlla du yónni jinne mboolem yonent yàlla yi ay nit lañu ay góor lañu loolee ñu bàyyi ci xel bu baax suñu borom lim ne laaj leen ahla zikr mbokk ahlu zikr mooy ñi nga xam ne am nañu xam-xam bu wóor loolu nag ca jamono ba alxuraan di wàcc ku ci sikki sàkk mënoon ngaa dem laaj ab yahud wala ab nasaraan ndax yàlla mas naa yónni lu dul góor waaye bu dee suñu diine lislaam bi suñu borom mu ne fas alu ahla zikri in kuntum la taalamuun ca mooy yow jullit da ngaa nekk góor wala jigéen lépp loo xam ne jàpp nga ko sa wàllu diine xamoo lan la ci lislaam wax demal laaj ku la tane ba xam lan la ci lislaam wax sun maam yi am na téere buñ daan jëkk a jàng fii ci Sénégal ñu tudde ko Laxdari day wax ne du dagan ci jullit an yafala fi'lan xatta ya'lama xukma allahi fihi daganul ci jullit ngay dugg ci dara di ko def lu dul nga jëkk a xam lii ma jëm lan mooy atte yàlla bi ci am su ko defee ñu dem laaj lan la yàlla wax ci nangam lan la yàlla wax ci nangam ci wàllu sëy bi ci wàllu intérêt bi ci wàllu jëflante bu mu mën a doon yow julit xamoo lu ñuy taaya xamoo lu ñuy sangoo farata yow julit xamoo xamoo ngal la waay loo xamul bu ca am kersa ci dem laaji ko mi ngi noonu yonent yàlla ba day ba muy dund suñu ay Aïcha daana wax ne rahimallahu nisaa al ansaar ma manaahunna alxayaau an yatafaqahna fi ddin yal na yàlla yëram jigéeni ansaar ñoom day kersa gu rëy ga ñu nekke woon doxul woon seen digganteeg ñuy dem di laaj seen diine ba xam ko loolu ku ne war ci bàyyi xel borom boobu nag na yonent yi fi jaaroon yépp defu leen woon ñuy ay nit ñoo xam ne duñu lekk ñam aha kay dañ daan lekk ñam keroog ba chrétien ya jiiñee isa ibnu mariam ne moom kat doomi yàlla la suñu borom dane déedéet isa du dara lu dul ab yonent rek yaayam jooju ngeen di wax di ko tuumaal ci borom bi siddiqa rek la woon kaana yakulaani taam isa ak yaayam yépp dañ doon lekk ñam kon ay nit ordinaire lañu woon ci jëmm lan moo teqale yonent yi ak ku dul yonent mooy wahyu ga nga xam ni yàlla subhanahu wa taala di leen ko wahyu gannaaw bi suñu borom mu ne wa ma kaanu xaalidin mbokk yonent yi saxuñu fi woon dafa am diir buñ doon dund ba seen dee jotee ñu dee dem nañu ñun nag jàpp nañ ne suñ càmm moom déewul daa làqu am déet ba suñ càmm làqoo ba suñ soow làqoo ba nga xamee tey sa oto buy waaj a daanu àllub kaañ mën ngaa wax yaa suñ càmm suñ càmm ñëw daal di koy redressé heure bay fakkastalu yaa suñ cheikh suñ cheikh daal di lay redressé loolee mbokk suñuy wax rek la doonte ne tasaaroo ne ci sunuy jataay rajo yi télévision yi booy déglu dañu naan la diw deewul diw deewul waaye mbokk abadan soo demee ci yenn dëkk arab yi da ngay gis ñoo xam ne dañu naan xadir deewagul dañuy dem ci àll yi sonn lool pour dajeeg xadir léeg-léeg nga dajeeg seytaane mu sol lu vertam ñëw ne la may xadir waaye déedéet mbokk julit amul benn doomu aadama bu yàlla bindal muy sax ba faw ñépp faatu nañu ko gënoon ci ñoom mooy suñu yeneen sallallahu alayhi wasallam faatu na te yowmal qiyaama dong dong lay dekki war borom boobu nag nee na yonent yi dëggal naa leen la ma leen digoon musal leen ak ñama soob te it mbokk yàlla mooy dugal ci yërmandeem ku ko soob yàlla na yàlla dugal ñu ci yërmandeem yàlla yónni na ay yonent yonent yooyu ñëw woote fukki nit ñoo leen gëm yonent ñëw na woote ñaaru ko gëm yonent ñëw na woote kenn ko gëm yonent ñëw na woote kenn gëmu ko waaye loolu mbokk dérangé wul yàlla yàlla mooy alxani su ko nekkoon jël asamaan ak suuf sànni sawara dara la ko wàññiwul loolee kon mbaaxug yàlla la mu boole la ci jaamam yi nga xam ne dañoo gëm loolee moo tax mu ne musal nañ leen ma mën na sha amma nag yàqkat ya yàq gi mbokk du dara lu dul def mbir fonk wër te def loolu rek mooy yàq ñu ngi noonu amma yàq gi gën a rëy nag mooy bokkaale ak sa borom borom boobu subhanahu wa taala gannaaw loolu it la bañ bépp façon yàq waaye yàq gi alagaate alaxira mooy bokkaale ak sa borom suñu borom nag wëlbatiku ci arab yi mu wàcce alquran gannaaw arab yi ci jullit ñi mu wàcce alquran mu ne wàcc naa ci yéen téere boo xam ne seen teraanga ma nga ca na am fiihi zikrukum alquran zikr la bu lay fàttali nu ngay jaamoo yàlla waaye it teddaange la gàlla waaye soo bëggee am teddaange gu sax ci kaw suuf adduna ak alaxira jëlal alquran jàngoo ko jëfe ko amul kenn koo xam ne dana taxawu alquran ca muy dëgg ci moom lu dul yàlla subhanahu wa taala dana yëkkati aw turam nit ñi di wax ci moom loo xam ne nii lu baax la moo tax borom bi ne afala tanqiluun mi ngi noonu yal na yàlla boole ñu ak alquran fi dunia wal axira barakallahu fiikum suñu borom mu ni wa xam wa kam qasamna ay ñaata lañ alak dammte ko min qaryatin kaanat zalima ci dëkk yoo xam ne dañoo nekkoon di aji tooñ wa ansha'na ba'daha qawman axarin ñu daal di sos gannaaw dëkk boobee la nga xam ne mooy ay maas ay mbooloo nit ñeneen falamma ahassu ba'sana ban demee ba yëg suñu mbugal ne mi ngi ñëw idahum minha yarkudun ci ñoom rek noonu la ñu nekkee di jéem a daw mbugal ba la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi bu leen nekk di jéem a daw dellu leen ca la nga xam ne xéewaloon nañ leen ca ba ngeen géejal ca wa masakinikum ak seen dëkkuwaay ya laallakum tusaluun ngiree ñu laaj leen qaalu yaa waylana inna kunna zalimin ñu ne e waay ñi ngi woo suñu alkaange ñun kat dañoo nekkoon di aji tooñ fa ma zalat tilka da'waahum dañul woon loolu mooy nekk seen woote ba xatta ja'alnaahum xasiidan xaamidin ba baa ñu leen di def am ngóob loo xam ne lu ñu góob la muy mboob xaamidin boo xam ne bu nooy la bu dal la wa ma xalaqna alsamaa wal arda wa ma baynahuma laa'ibin ñun day dinañu asamaani ak suuf ak la nekk ci diggante ba ci fo rek law aradna an nattaxida la huwa bu doon te ne dañoo bëgg a jël loo xam ne dañuy itteel muy soxna wala doom la taxasnaahu min ladunna kon doon nañ ko jël ci ñun yàlla in kunna faa'iliin bu doon nekk nañ jëkk a def mi ngi noonu bal naxzifu bil xaqi ala al baatil li am kay mooy dañuy jël di sànni dëgg ca kaw neen fa yadmaguhu mu daal di koy moxoñe ak dimaax mooy yuuru mooy loo xam ne dina toj yuuram ga fa ida huwa zahiq mu doon loo xam ne neen la guy sànku walakumul waylu mimma tasifuun ci dana leen ñeel alkaangi ci li nga xam ne yéen ngi koy melal di ko jëme ci yàlla mi ngi noonu mbokk suñu boroom waa Makka ñi ngi laaj ay kawtiif mu ne nag moo ñoom xanaa xamuñu ana ñaate ci ay dëkk ñoo tooñ laaj kawtéef ñàkk a gëm suñu borom yàlla subhanahu wa taala alag leen indi maas yeneen te it noonu lañu ko yàlla nettalee ci saar yu bari depuis yonent yàlla nuux dem huut saalix luut ila axiri suñu borom mujj ne summa arsalna rusulana tatra yonent yi tegaloo bépp yonent bu ñëw weddi yàlla alak ñeneen ñëw mu ne nag buñ demoon ba yëg ne suñu mbugale gi ñëw ñoom ñépp nag ñuy daw ngiree mucc mbugal boobe suñu borom mu ne déedéet kaay leen dellu si ci liñ leen giijale woon mbokk ak tarf mooy ak ziyaadatu fi ni'ma xiiwal jullit war na koo bëgg waaye nag mbokk nañ moytu ak noos mooy jiggi dayu ci luxe jullit war ngay moytu loolu dafa mën a jeexital ci sa ngëm donte ne jamono ji ñuy dund nag mooy jamonoy luxe ñoo xam ne nii tey seen table à manger boo fa demoon ñaar fukki nit mën nañ caa lekk ba suur ñu daal di jël yàqate lan ñuy dëkkee yàqate la ñuy war yàq la loolee mbokk da ngay gis ne mandarga yéefiri yàlla alagoon ñoom ñoo mela woon noonu loolu tax nit ñu bañ nit ñu jëkk ña dañ doon bañ luxe ba ëpp ñu ci nekk di ko dund gàllawaay xamal ne luxe bi gën a màgg mooy su la yàlla mayee le nécessaire ci àdduna naam dëkkal fu baax waral fu baax lekkal lu baax mais leneen la nga nar a nekk di yàq dimbilee ko sa mbokk yi nga xam ne bu ñu añee duñu reer dimbilee ko sa mbokk yi nga xam ne amuñu fu ñu fanaan dimbilee ko dimbal goo xam ne sa bopp ngay dimbali ndax yaa ngi koy jiital allaxira loolu moo gën façon noos yi am léegi borom bi yëpp subhanahu wa taala ni dellu leen ngiree ñu laaj leen mbokk loolu mooy cadre général ci ñu yàlla doon wàcce mbugal ci dëkk waaye amul benn saay-saay buy faatu na doon yéeféer la wala jurit bu sàgg na woon diineem lu dul bu ko malaaka yi dee jëlsi dana wax rabbi irji'un ay yàlla may ma ma delluwaat may ma mu dundaat tuuti ngir yàlla ma def lu baax bala may dee te loolu kenn du la ko nangul su ko defee borom bi moom lay wax ne dañ naan alkaa nga ñeel nañu ñun day nekkoon nañ di toon loolu lu deñ ñu koy répété di répété ba doon mbopp moo xam ne nii suñu borom da leen a fay ñu ne nem amatuñu benn bu ñu fu ñu yëngatoo ci lii kon bépp jullit buy jàng aaya yi it war naa bàyyi xel man day maa ngi nii jëm ci dee ngalawaay li nga nekke ci xéewalu àdduna bàyyi ci xel jëfandikoo ko gannaaw bu ma dee lan la ma mën a jëriñ ca mooy aaya yiñ doon jàng ci timis léegi suñu borom mu ne ay yéen doomu aadama yi ragal leen yàlla ku nekk xool lan la jiital pour ëllëg ragal leen yàlla yàlla amul benn kumpa ci li ngeen di def borom boobu subhanahu wa taala nag wëlbatikuwaat ci wax ak nit ñi ne leen asamaan bii leen tiim suuf mi ngeen toog bindu mu ko ngir fo déedéet bokk julit yàlla bindul asamaan suuf ngir fo yàlla won nañu asamaan nga génn léegi xool la ca nekk ci ay biddiw lan ci gis matul un milliard la ca nekk biddiw yooyu c'est des milliards de milliards de milliards suñu borom mi ngi lay won kattanam suñu borom mi ngi lay won xikmaam suñu borom mi ngi lay won yërmandeem xoolal kaw suuf ñaati millions d'espèces yu ñoo fiy dund ci ay garab ci ay bayuma ci ay fleur ci ay montagne ci ay ay ay loolu lépp borom bay li mi ngi lay won ne la lii boo ci bàyyee xel da ngay xam ne sa borom yàlla mooy borom kattan gi nga xam ne innahu ala kulli shay'in qadir mooy borom yërmande bi nga xam ne mooy yërëm ay jaamam ndax lépp lu mu bind ci asamaanug suuf ngir yërëm doomu aadama yi la mooy ka nga xam ne mooy borom xikma bi bind ko ngir fo borom bi nag ne su ma bëggoon fo lu ma itteel danaa ko jël ci ñun waaye du ma ko jël ci yéen te booba ma ngay tontu ñi nga xam ne dañ ne yàlla dafa jël soxna yal na yàlla rëbb leen ci la ñuy wax yàlla dafa am doom yal na yàlla rëbb leen ci la ñuy wax yàlla mu ne su doon damay wut soxnaa ki doom du ma ko jël ci yéen nit ñi danaa ko jël ci man ñi ma nekkal ci kaw asamaan yi kon yàlla sell na kawe na ca la nga xam ne moom la ñuy def ci moom la ñuy wax borom bi nag nga déedéet bal seen fen yooyu ngeen fen seen noon seen duural yooyu ngeen duural dana indi kaddoom muy téereb yàlla bi sànni ko ci moom moxaña ko ca it du tee yàlla dana leen jagleel mbugal ci li ngeen di melal ci na am mbokk amul kenn koo xam ne dana jàng alquran lu dul dana xam ne di yàlla wax kese kese kese moom mooy dëkk te lépp loo xam ne dañ koy duural yàlla jalla wa ala wallahi da ngay gis ne boo jàngee ci rëb yàlla bi xam ne loolu nekkul loo xam ne nii du nekk laa mi ngi may fàttali que benn mag bu fi jaaroon di Ahmed Didat yal na yàlla jéggal ko yërëm ko Ahmed Didat kombam bi yëpp mi ngi nekkoon ci wax ak ahlul kitab wax feeñal li ñu sosoon ci seeni téere comparé ko ak alquran li tuub ci loxoom kenn xamul ñaata junni la mas nay wax ak benn magoom chrétien ne ko waaw yéen tey li ngeen wax seen téere yi mooy yàlla moo jur isa moog Mariam ñoo jur isa mu ne waaw loolu boo ko bëggoon expliquer sa doom tey noo ko koy expliquer waa ji jett la su xamul lu mu koy wax mu ne ko li yàlla wax nag ci alquran yàlla mu ne isa ak aadama yem yàlla bi mu koy bind daf na ko kun fa yakun ndax loolu mënoo ko expliquer sa doom mu ne ko wax nga dëgg de ca mbokk kon mi ngi noonu sunu borom yàlla nee na mooy wàcc dëgg sànni ci neen neen daji tasaaroo aaya bi keroog ba suñu borom yàlla dogalee yonent yàlla di ubbi kaaba ga loolu la doon wax jaa alxaq wa zahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqa mag bu mboolem la fa nekkoon ci xërëm yàlla saxal fa kaddu la ilaha illa allah depuis quatorze siècle ba tey léegi léegi ci gée moo ci mujj incha allah ci fajar daañ ko fi yëkkati loolu kon mooy dëgg rek mooy sax nen day dellu gannaaw yal nañu yàlla boole ñu ànd ak dëgg adduna ak alaxira mi ngi noonu Cheikh Ousmane
وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل
jazakumullahu khayra suñu borom mu ne wa lahu man fi samawati wal ard ñeel na ko mboolem ñi nekk ci asamaan yi ak suuf wa man indahu ne ne fa ca moom ci ay malaaka laa yastakbiruuna an ibadati duñu rëy rëy lu mukk ci jaamu ga ñu jaamu seen borom wala yastaxfiruun duñ ca dog mukk ay duñ ca tayyi mukk yusabbixuuna leyla wa nahaara laa yafturuun ña ngay sabbal guddi di sabbal bëccëg duñu dagg mukk seen sabbal googe am ittaxadu alihatan min al ardi hum yunshiruun wala boog dañoo jël ay yàlla ci kaw suuf yoo xam ne ñooy dekkalaate law kaane fihima alihatun illa allahu la fasadata su doonte ne am na ci suuf yeneen yàlla bu dul yàlla yi kese kon day da doon do wala boog bu doon dafa nekk ci kaw asamaan ak suuf yeneen yàlla bu dul bu dul yàlla la fasadata kon ñaar yu yépp daañ doon loo xam ne luy yàqu la muy asamaan ak suuf fa subhanallahi rabbil arsh amma yasifun sell ñel na yàlla borom arsh ja ca la nga xamee ni ni moom la ñuy melal laa yusalu amma yafalu wahum yusalun suñu borom mu ni kenn du ko laaj la muy def ca ñoom lépp luñ def daan ngeen ko laaj am ittaxasu min dunihi aliha wala boog dañuy jël ba tey gannaaw yàlla ay yeneen yàlla qul haatu burhanakum neel indi leen seeni preuve yuy wane ne am na leneen luy yàlla ci lu yàlla haada zikru man maiya lii day mooy fàttali ga nga xam ne mooy ña ànd ak man wa zikru man qabli ak fàttali ña nga xam ne ñoo ma jiitu woon bal aksaruhum la yaalamuuna alxaq waaye la ëpp ci ñoom xamuñu dëgg fa hum mu'ridun ñoom dañoo nekk ñuy dum mooyu mi ngi noonu mbokk suñu boroom day wax ne ñi koy dooral naan am na doom déedéet mboolem ñi nekk ci kaw asamaan yi mboolem ñu nekk ci kaw suuf ay jaami yàlla lañu jaami yàlla lañu ñépp ay moomeef lañu yàlla amu ci nawle yàlla amu ci kenn koo xame ni nii génn na nekk ab jaamam mu ne nag malaaka ye ne fa moom te it mboolem yahud yi seen xel yàquwul chrétiens yi ak jullit yi seen xel yàquwul yépp gëm nañ ne yàlla mi ngi ci kaw asamaan bi am déet mbaa moom ngeen gëm yàlla na ngeen ko gëm ba dee yàlla ko loolu la ñuy ñaan yàlla yàlla ngi ci kaw asamaanam yi bul bokk mukk ci njàpp ne yàlla mi ngi fépp yàlla wala ñu jàpp jàpp ne yàlla nekkul fenn mu ne ñene fa moom ca muy malaaka yi ñoom day duñu rëy rëylu ci jaamu ko laa yastakbiruuna an ibadati ca mbokk jullit ngal la waaye bul rëy rëylu ci jaamu yàlla ndax xam ne lu rëya rëy mooy bañ dëgg ak xeebaate doomu aadama yi bépp lu jóge ci yàlla jullit da ko war a bëgg mu safaanoog lenn ci li nit ñiy wax masalan di critiquer ak makka Sénégal dañ fiy gis ñoo xam ne aj makka ak la ci aju dañ koy critiquer ouvertement bokk loolu lu ñaaw la wax loolu waroon naa jóge feneen fu dul réew mu mel ne Sénégal malaaka yi borom bi da ñoom lépp lu yàlla digle duñ ci réy réylu malaaka yi borom boobu it nekk nañ yoo xam ne duñu tayyi ci jaamu seen borom jëlla wa ala ña ngay sabbal guddi bëccëg duñu dokk mbokk malaaka ni muy sabbaale yàlla mooy yow ni ngay noyyee julit buy yow nit bi ngay lekk yaa ngi noyyi bi ngay nelaw yaa ngi noyyi booy daw booy liggéey yaa ngi noyyi malaaka yëpp noonu la yàlla desee nañuy sabbaale yàlla du dog guddi du dog bëccëg taxaw ga ñuy taxaw ci jaamu yàlla du dog guddi du dog bëccëg malaaka yi du ñu nelaw malaaka yi du ñu feebar malaaka yi du ñu révolté guddi ak bëccëg ñi ngi nekk ci sabbal seen borom jalla wa ala loolu it yow julit mënuloo ko mënuloo ko waaye def ca sa kemtalal kattan benn waay ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko day lii diine digle dafa bari lool ndax doo ma wax yoon boo xam ne mën naa caa jàpp ba loolee dimbali ma ba mën a dem aljanna ci jàmm rasul sallallahu alayhi wa sallam lan la ko wax fexeel ba sa làmmiñ ba mu deñ ci zikrullah ba mu deñ de tooy ci zikrullah foo toll def zikrullah loolu it bu dee ne nekk na lu jafe am na azkar yu lislaam jàngale nga looy bu ko sàggane foog naa ne kenn ci ñun du sàggane su jullee ba pare subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 tëje ko laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir waaye it nga la waay bokk ca boole ca subhanallah wa bihamdihi subhanallah bihamdihi cent fois le matin cent fois le matin matul trois minutes matul trois minutes ngoon nga def ko cent fois matul trois minutes gis nga loolu yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yowmal qiyaama amul kenn ku indi ay jëf ay jëfam gën a rafet say jëf lu dul koo xam ne daa jëf lu ëpp loolu kon nga la way dee leen bari zikrullah wàññi temps bi ñuy jagleel portable temps bi ñuy jagleel ay futilité suñu làmmiñ yi ñu bari di zikrullah ngiree roy malaaka yu tedd yooyu borom boobu nag subhanahu wa taala ne am nit ñi dañoo jël ay yàlla yoo xam ne ñoo leen di dundal di leen dekkal loolu amul bu doonte ne asamaan ak suuf am ne beneen yàlla bu fi nekk kon yàlla dana bëgg a indi guddi kii ne bëccëg mooy ñëw yàlla ne biddiw yi jaar leen fii keneen ñëw ne déedéet jaar leen fii mu indi catastrophe générale yàlla ne weer bi wëral fii kenn déedéet jaaral fee kon organisation bi nga xam ne moo am ci mboolem jaww ji yépp li doomu aadama xam ak li mu xamul day wane ne ndigal yi ci kenn lay jóge loolu day saxal laa ilaha illa allah looloo tax ba amul lenn lu doomu aadama di settantal lu dul mu gis ca laa ilaha illa allah wa fi kullin lahu aya tadullu ala annahu alwahid mi ngi noonu jalla wa ala borom boobu nag ne xam leen ne sell ñeel na ko moom mi borom arsh arsh rahman moo ëmb mboolem bindaafanu borom bi jalla wa ala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na asamaani juróom-ñaar day buñ ko doon mingale ak kursi day mel ne yow mi juróon benn jaaro sànni ko ci benn désert noonu la kursi ëppee juróom asamaani juróom-ñaar buñ doon mingale arshu rahman ak kursi boobu day mel ne ab jaaro boo sànni woon ci désert loolu mbokk mooy arshu rahman rasul sallallahu alayhi wa sallam gis ne na sahaaba yi yàlla jox na ma ndigal ma wax leen dara ci xamalatul arsh mooy malaaka yi yenu arshu rahman yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na picc bu naawee ci mbaggu benn malaaka balaa yegg ci ker noppam mu noppam dana naaw juróom-ñaari téeméeri junni ci ay at yoo xam ne dana ko naaw balaa yegg ci nopp malaaka ba bu jóge ci kii ba loolu ay mbir la yoo xam ne mbokk jurit mënuñu koo xam ca bi ko yonent bi wax ak sahaaba yi ñoom ñu gëm ko mais tey bu ñu demee ci scientifique yi ñu ñuy wax la nga xam ne moo ñuy nekk suñu kaw ci ay galaxie ci ay star da nga xam ne gën na yéeme loolu téeméeri gën yoon ndax quand bu ñuy wax ay année lumière ay picc buy naaw loolu sax du dara ci par rapport ak loolu waaye mbokk loolu dalay wane ne mbokk yàlla du morom yàlla du maas e waaye nañ jaamu yàlla bañ ko bokkaale dara keneen kum mën a doon bu baaxee ak mbaaxamit bu mu tax ñu jox ko la yàlla moom laa ilaha illa allah kese moom dong may ci ñu war a sukkandikoo borom boobu nag ne lu ko neex def kenn du ko laaj lu tax nga def lii wala def laa amma ay jaamam ku nekk lépp loo def ci kaw suuf yàlla dana la ko laaj lu taxoon nga def ko loolu ñu bàyyi ci xel bu baax wahum yusaluun amul benn xéewal bu la yàlla di xéewal lu dul dana la ko laaj yowmal qiyaama amul lenn loo xam ne da nga ko wax lu dul yàlla dana la ko laaj yowmal qiyaama amma moom laa yusalu amma yafal ku mel ne xasanul basri rahimahullah nekkoon na bëri ay jooy jooy na ko waaw imam xasan sa jooy yi moom bëri na mu ne waaw yàlla mi may jaamu nee na moom laa yusalu amma yafal faalu li ma yurid bu yowmal qiyaama mu ne jëlin xasanul basri yóbbu sawara ku koy laaj lu tax kon loolu moo ko jooyloo kon mbokk kooku mooy suñu borom looloo tax ñu war a toroxlu ci kanamam yaakaar ko jalla wa ala borom bi nag ne waaw am dañoo jël ay yeneen yàlla yoo xam ni nii ñoom la ñuy bokkaaleeg yàlla waaw ana seen preuve mbokk aay bii la jullit ñëpp war a bàyyi xel haatu burhanakum li yàq diine nit ñi mooy ku nekk day reer ba dégg sëñ diw nee na yàlla nee na ko sëñ diw nee na yàlla may na ko ila axiri ila axiri mais loolu mbokk yomb na lool bu ma neexee mën a gaa yi démb kursi laa yendu aras laa amee ji waaw mais mais loolu yomb na ku ne mën na ko wax mais nag haatu burhanakum lan mooy seen preuve àllaaxira sëñ diw sëñ diw sëñ diw haatu burhanakum lan mooy seen preuve mbokk preuve bi mooy téere bi ngeen tiim lépp loo xam ne dëgg la mooy lii alquran ci bépp wax ju safaanoog lii wallahi du dëgg haatu burhanakum borom boobu nag ne hada zikru min ma'i alquran yi ngi nii zikru man qabli tawraat ak injil yi ngi nii yéen chrétiens yi dem leen fan la yàlla wax ci injil yéen juif fan la yàlla wax ci tawraat ne Uzayru sama doom la wala Isa sama doom la mbokk loolu ñoo ko sos ci seen diine mais yàlla wàccewu ko ci seen téere seen téere authentique amul benn téere booy dem fekk fa lu dul Isa jaamu yàlla la Uzayru jaamu yàlla la yonent yëpp ay jaamu yàlla lañu waaye nag sos nañ ci seen diine comme julit ñi it ni ñu sose suñu diine ay xutboog ay lu nekk créé nañ ko loo xam ne haatu burhanakum amuñu ci benn burhan borom boobu nag subhanahu wa taala ni la ëpp ci nit ñi xamuñu dëgg te dëgg mooy alquran ba pare fa hum mu'ridun jéemu ñoo xami lan muy dëgg ña nga jël leneen lu ñu topp su ko defee kon mbokk suñu borom mi ngi noonu la ilaha illa huwa yal nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne ñoo seede ak wéetam yal nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne nii ñoom lay nangul adduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ndax xam na hadis yi wérul kay ah déedéet déedéet déedéet ndax muxtaarul hadis hadis yëpp wér déedéet muxtaarul hadis mooy téere la bu mu jël ay hadis yu mu tànn dajale ko ca yoo xam ne nii dalay jàngal lu bëri ci wàllu diine waaye nag firiwul nit la ñëw ci muxtaarul hadis yëpp ñooy la wér déedéet loolu moom firiwul loolu mi ngi noonu man ngaa wax sax ni téere boo xam ne dañ ne lépp wér loolee xaw nga mën a wax ne amul mi ngi noonu xanaa kay la ñuy def mooy gën a wérante bokk na loo xam ne nii boroom xam-xam yi umma bi yépp dëppoo nañ ci téere bi gën a wér yeneen téere yi mooy saxiixul buxaari gannaaw ba saxiixu muslim waaye firiwul nag ne la ca ñëw lépp lépp dañ ne dafa doon lu wér ndax loolu ab téer yàlla ab téeram dong la def lépp wér comme ni imam Shafi doon wax yàlla bañ na lu dul matal ab téereem looloo tax comme ay junni junni xaris lañ dajale am na ca yenn yoo xam ne ci borom xam-xam yi génne ku mel ne Cheikh Nasir Albani am na ay dabantal yu mu dabantal ci Bukhari ak yeneen ak yeneen kon daal téere moom day am nam gën a baaxe waaye nag du doon loo xam ne dañ naan lépp wér wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaleykum salaam naam iyaakum ala kulli xaal ndax nit ñi juma jot ñu daal di julli ci kanamu imam loolee mbokk nañu xam ne nekkul luy jaadu la gën a néew ca la ca borom xam-xam yi wax mooy mbir la moo xam ne nii bu ñu sib la waaye amul benn borom xam-xam boo xam ni rafetlu na ko ña nga xam ne am nañ pexe nekk ca gannaaw imam am na ñoo xam ne ni mën nañ sikk sàkk seen ñàkk julli waaye daal la ñuy wax mooy la la ñu gën a néew lañ ca mën a wax mooy sib nañu nit ki taxaw ci kanamu imam fekk ne am na fu mu taxaw ci gannaaw imam am maa nag bu dee bërëb ba daa bindoonoo xam ne lay gannaaw imam yépp fees na su boobaa kenn bañul ko taxaw ci kanamu imam waaye daal ñuy bàyyi xel loolu am maa nag duñu mën a wax ne julli ga baaxul loolee lu ñu sib la wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah waaw waaleykum salaam ndax waxtu yi nga xam ne dañ koo tere naafila ndax mënees na koo sujud sujudu tilaawa su dee ne borom xam-xam yi dañoo am ixtilaaf ci bépp julli bu am sabab ak bu amul sabab bu dee ñi nga xam ne dañoo jàpp ne julli gi bu dee am na sabab terewuñ ko ci loo xam ne ni waxtu yu ñu tere la ñoom dañ naan mënees na koo sujud bu dee ne nag ñoo xam ne ni dañoo jàpp ne julli gi kat kenn waru koo def na doon sabab la ak lulu sabab ñoom ñooy bañ lu demee noonu ca loolee bokk na ca la nga xam ne nii mooy mazhab Malik ca rawatina mooy gannaaw takkusaan bu ñu demee ba jant ba di xonq ila axiri loolu daal kon la ñu mën a wax ci wàllu googee mooy amuñu texte buy mën a teqalee ci ne tere nañ ko boo ko defee xayrun boo ko deful it loolu amul benn ngant wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah ki anniversaire bi su juddoom kooku liñ koy wax mooy yaa ngi nuru nurulu nasaraan yi ñoom ñoo xam anniversaire googu ñoom ñoo ko commencé di màggal juddug Isa ak leneen ak leneen su ko defee mbokku islam xamuñu woon jullit di màggal bisu juddoom même nga jël ko bis ba nga judd woon di ko naan di ko woor loolu amul ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam daan def doon woor altine loolu ci semaine ba la waaye daawul ñu wax ne tey la fukki fan ak ñaar ci rabiul awal ñu ne yonent bi da ko woor bal borom xam-xam yi am nañu ixtilaaf kañ la yonent bi judd loolee borom xam-xam yi dëppoowuñ ci amul benn kuy am xam-xam buy mën a dogg ne bis bi la yonent bi judd ñàkk dëppoo ci bis ba rek moo lay won ne kon yañ cay dañ cay am dañ cay wax yépp amul ndax bu doon saxaaba yi dëppoo nañ ci bis ba kon loolee du ci am amma nag bu dee ne yow jullit ndax yow am nga droit ni man jeudi laa judd woon kon damay wóor jeudi loolee mbokk gis nañu ne bu doon lu baax ñañ cey jiite mooy sahabatul kiram te xamuñu kenn ci sahaba yi koo xam ni daa saxaloon di wóor bisu jeudi su ko defee boo bëggee ngëneel defal la yonent bi doon def mooy wóor lundi boobu nga xam ne bisu judd ba keese taxul mu koy wóor ndax dane ci laa judd ca ci la ñu wàcc ci man alquran kon boo bëggee dabantal rek yaa ba defal loolu amaa nag bu dee yaa ngi may laaj ña nga xam ne ñoom dañ koy def ak noos woote ñuy def na ko su dul noonu loolu moom ci chrétiens yi dañ ko jëlee wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuh kii dem ba kàbbar fàttaliku ne liqaamul day continuer julleem liqaam boobee boo xisee ba kabbar passé na boo kabbarul nag ci sunna la yu ñuy def avant julli waaye boo xisee ba kabbar moom liqaam passé na da ngay continuer sa julli ala kulli xaal mbokk kon kii day laaj mu ne waaw bu dee ne man dama am problème ak sama soxna dem ci ay kilifaam di ko wax problème ya ndax loolu dañ koy tuddee ak jëw tant que yaa ngi yem ci li mu def day loolu du jëw bu dee ne sa yéene mooy ñooñi yedd ko mu dellu gannaaw loolee du question soxna ku dul soxna sax képp koo xam ne dafa nekk ci lu dëng nga dem ci koo xam ne jàpp nga ne mën naa wax ak moom ba mu bàyyi dëng googee sa yéene sell ci loolu loolee kenn du ko tuddee ak jow mi ngi noonu mi ngi mel ne rek ak laayi biir tey jii mën ngaa gis nit koo xam ne nii mi ngi dugganteeg nit te nga xam ci moom ak ndëng nga dem ci waaji ne ko ah kii ma gis ngay dëgg dugganteel moom day moytu ko ndax nii la mel naa la mel bu dee yow sa yéene mi ngi sell ne jubluwoo ci lu dul laayi biir kii ngir ñu bañ koo lor loolee kenn du ko tudde jëw place bi xat na waaye yóbbu nañ ko ba ci juróom benn mbir yoo xam ne nii loolu bokkul ci jëw jëw daal mooy waxal nit ki loo xam ne da nga ko cay wàññi waxal nit ki loo xamee ne nii bu ko déggoon du ko du ko neex wa fekk ne benn maslaha nekkul ci gannaaw loolu loolu la ñuy tuddee jëw mi ngi noonu mbokk ñi it waa alfalah ñooy wax ne am na conférence bi ñu am dimanche bi di ñëw ci rue 22 ci face de l'Orme 10 heures lay doon ki koy def mooy imam Kanté mi ngi nar a waxee ci l'islam face au lobby mi ngi noonu incha allah ñu bàyyi xelit ne sunu trésorier bi mi ngi wax naan ñi bëgg a barkeelu incha allah am na ticket yu leen di xaar ci biti di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla may ñu aafiya fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain